teraanga doomu aadama liggéey dong moo ko mën a joxe te lu mu néew néew moo ma gën a leneen lu ma mën mënti am jamono liggéey jamono liggéey la mu nekk liggéey war na góor game. For what I take, take you over, they know why. rahmatullah man Roqay Ñang laa tudd présidente GIE ñàkk jariñu centre polyvalent Kër Massar zone de recasement waaw ñun ñi ngi commencé woon GIE bi moom yàgg nañ ko commencé depuis 2009 la woon ci la ñu commencé woon di def suñuy cotisation bopp di jënd par 50 kilos di liggéey di dem bi ñu demee ba 2014 nag si la ñu bindoon demande envoyé ko ONFP yàlla dogal ñu nangul ñu ko may ñu benn formation bu dellu woon ti frise de légumes instant bi ñuy may formation bi boobu 20 personnes la ñu woon ñoom ñu indil ñu matériel indil ñu formatrice bi mu ñëw defal ñu formation bi le 10 jours le 22 ba le 13 lañ fi nekk di def formation bi ñu paree nag matériel yooyu nga xam ne moom lañ ñu bàyyi loon ak euh, matière première boobu ñun ñu indiloon ñun moom la ñu continuer nag di ko liggéey di ëlbati di dem di dugg ci biir select yi di dem ci station yi léeg-léeg ñu jël yóbbu ci maire yi léeg-léeg ñu jël yóbbu ci Sonatel yi fu ñu xam ne rek direction la ay nitan fa ñu dem yóbbul leen suñ demee jox leen su weer bi dee ñu fay ñu ñu dem récupérer ko indi di dem ci école yi di ko jox directeur u école yi di yóbbu suñuy jus di yóbbu suñuy boisson continuer ak ñoom ndànk-ndànk si la ñu continuer ba bi yàlla dogalee 2016 ñu jëlaat yeneen 20 personnes mu nekk 40 ñu continuer noonu nag di jël par deux personnes di continuer di liggéey di yokk ba ñu ngi ci 85 personnes actuellement ni ñoo xam ne ñu ngi continuer di liggéey à part formation bi nga xam ne defoon nañ ko ak waa ONFP biñ ñu mayoon. waaw dama fa ñëwaat parce que lu yokkuwul jaru ko te ñun fii chaque jour dañuy am ñoo xam ne dañ fii ñëw di bëgg a liggéey ñu leen di teg fi mu ne nii secrétaire bi su la wonoon dina la woon soixante quinze démb yoo xam ne ñu ngi xaar pour ñu jël leen. léegi yow ñooñu ñëpp xamoon noo leen di def looloo taxoon bi ma yëgee ne ñi ngi fa ma ne naa daw dem profito dugalaat beneen demande suñ nu mënee defal renforcement de capacité defal ñu beneen formation bu dellu ci wàllu pâtisserie wala soow bi wala beneen formation bu ñu nu may ça fait ñu mën a jël quinze yi nga xam ne ñi ngi xaar ñu jëlaat leen ñu continuer di liggéey parce que fii képp ku fi xëy si saay boo xëyee soo wàccee dañ lay fay am nañ fi ñoo xam ne dañ leen di fay journalier am ñoo xam ne dañ leen di fay salaire pour xale yi presque 45 jeunes ñi ñoo xam ne moyen de de 30 lañ gis nga leen gis nga xale yi ci biir maire yi nekk fi ñoom tamit plus de 60 quelque di mooñ di tey di def gis nga leen yaa yore sa bët nga gisal leen moo tax sànq bi ma ñëwee ma ñaanoon sax ne ñoom nañu ñëw ci sud bi ndax wet di gis bokku ci ba ñu gis comme dégg naa leen fi nag te wax ne dañoo ñëw pour jàppale département bi te man comme dund naa ko xam naa ko te xam naa fi ñu ma jëlee parce que bi may tàmbali ak 20 personnes suñ demee ba 80 personnes daan defar 5 kilos buy ak 5 euh, kilos daqaar di defar saaku jinjeer la ñu sotti 180 kilos la def ñukoy liggey gis nga commande yoy fa tege non taxaw di xaar kon loolu sante yalla suñ ko amé ci benen branche dinañu mëna a atteindre suñu objectif buñ ko mënul 100 timit dinañu mëna dem ba au moins ñu am 200 emplois wala 300 emplois parce que fi zone la bo xamné zone sociale la soit ku xëy wul fi rek ma nga mbëbës di raxas kubir wala muy forbuté wala mu dem ci mbalit bi looloo tax nag loolu lañ doon xeex di ko lutter moo tax ñu continuer ci la ñu dem ba jur mu jur céréale bi frise de légume bi ñu dem ba léegi macha allah ñu ngi ciy liggéey di ci yeb conteneur di ñaan tamit mu yokk parce que des fois ñu ñu demandé ñu loo xam ne mënuñu ko satisfaire mënuñu ko satisfaire ci ci finance mais mënuñu ko satisfaire ci nombre délai bi nga xam ne dañ ñu koy jox pour ñu mën ko cee defar ci noonu tamit la ñuy demee di yokk ba commencé woon fi savonnerie benn jour dañu amoon commande bu mag ci wàllu benn nar bu doon jël fii di ko jaayi ci selecte yi jus bi ñu koy defaral mu koy yóbbu di yóbbu Maroc projet boobu li ñu ci gagner woon ci la ñu dem jënd matériel yi ñuy liggéeyee savon liquide bi daal di détaché beneen 30 personnes wàcc leen ci savon liquide bi ñoom ñu produire di dem di ko jaay su école tëjee dañuy jël fii ay jeunes cinq jeunes ay xale góor ñoo xam ne ñoom pour fourniture rek la inscrire école kese la dañ leen koy dencal ba trois mois yi ñu jox leen ñu jënd si seeni i fourniture fay ci seen inscription dem jàngi noonu la def. ñu bëggoon amuñu woon benn formation bu ñu suivre ONFP moo ñu jëkk a defal formation ci Félix de Diop 2014 la ñu ko defal mais avant amuñu woon formation mais après ñoom it amuñu formation waaw. lolo tax ñu bëgg ko parce que ñom biñ ñu défalé benn boobu 2014 ba légui amuñu benen te benn boobu limu jur gis nga ko kon suñu amatoon benen dina juraat lu ëpp lolu lolo tax ñu dégg leen fa rek ñu téla daw te du man kenn daw sax informé na ñu bëri ne leen ñun kat fi nu jaar parce que toujours nit interpellé la né la e bi fan la fan la ki fan la dem nan la def ba ba am ki kon bañu am ki kon loolu nga xamante ne jur na ko man tamit ñii ñëw fii dama demandé damaa dem si ñoom ne leen euh, ñëw leen ñu dem parce que woo nañ ma ne ONFP dafay ñëw fee kon su ngeen ñëwee yéen it mën ngeen a am formation mën ngeen a am yéen tamit ngeen liggéey comme ñun looloo tax ñu ñëw fi yi ñi may wax GIE bi mooy chaque jour nan tey jii rek fee man bi li ngeen toog foofu yëpp toogu ma maa ngi wër doon woote ñi ma xam ma ne leen ñëw leen parce que ñun ñi ñu jàppale ba ñu toll fii ñoom ñi ngi ne commencé nañ ñëw nañ ñëw nañu vers yéen au lieu ngeen doon dem di bind demande demande yi dafa tege tey ñoom ñoo leen fekk si ñëw leen ngeen dugal seen i demande ngeen tànt sens parce que du ñàkk ngeen am fa formation parce que fii nii formation yi ñu fi soxla bëri na déjà gis nga espace bi nu mu tey jeunes yi fi nekk nii di taxawaalu tey suñu amoon formation buñ ñu defal ci wàllu aviculture ñu yargi naan xoola fii 2000 ginaar mës nañ ko fi def projet xeñ na fi kon suñu amoon formation boobu ñeneen dinañ fa mën a liggéey looloo tax may ñaan képp koo xamante ne rek mi ngi liggéey nit ñi dañoo réere xamuñu fu ñuy jëm ba dem formation moo tax ONFP man chaque jour damay nekk seen inf koo xam ne ku ma gis informé naa la ne la bindal nga dem seen ambassadeur laa doon di leen informé mais ñoom it nuñ ko gën a yaatale nañ ko gën a yaatal parce que ñii yore GIE xamuñu fu ñuy dem pour am formation te boo fi woowee nit na kaay defal ma formation ñaari fan la lay defal defal ñetti fan fayeeku la loo xam ne doo ko am loolu moo tax donc man moom maa ngi ñaax ñëpp pour ñu dem seeti waa ONFP ñu defal leen formation parce que métier moo jàngul ba yor ci sa diplôme munoo ko jàngale munoo ci dégle te ñun si suñu bopp sax faf dañuy dem di jàngal ñeneen dañ leen di wax ne formation bi ONFP moo ñu ko defal looloo tax